xibaar yi xibaar yi xibaar yi ci biir Touba Mbella TV xibaaru ay bisi ak Ababacar Diouf dal leen jàmm ci Touba Mbella xibaar yi ak Ababacar Diouf. dal leen ak jàmm mbokki internet yi Touba Mbella TV ñi ngi leen nuyu bu baax di leen jaajëfal ci ànd ak ñi ànd ak ñun seen retour de la semaine tey dañuy daal di suwaat rek li ci gën a fës ci euh, bopp xibaar doore kook euh, annulation manifestation bi nga xam ni Yewwi Askan Wi doo leen ko amoon ci le 29 bi mujjul antu nag ba ñu mujj woote li nga xam moom mooy confrance de presse loolu mooy li gën a fës euh, ci bopp xibaar ginnaaw bàkk ba nag ni ñu war a yaata gi faram-fàccee. yi xibaar yi. xibaar yi ci biir Touba Mbella TV xibaaru ay bisi ak Ababacar Diouf dal leen jàmm ci Touba Mbella TV xibaar yi ak Ababacar Diouf. ginnaaw Mbacke bi ñu ngi leen nuyu bu baax a baax ci micro bi Ababacar Diouf doore ko manifestation bi nga xam dañ ko annulé yeewee askan wi doon amal ci le 29 euh, juin bii nga xam ni moom la ñu weesu ci cadre yi nga xam ni kii di Ousmane Sonko di njiitu yeewu askan wi jot na ko yëkkat ci boobu les conférence de presse jëmale ko ci li tax ñu gën a arrêté lii nga xam ne moom mooy manifestation bi tax du jëm ci événement tabaski jënd ak njaayam xar mi nga xam ne moom moo ne ci réew mi ñu euh, ñu bañ mu am genn gàllankoor rawati rawatina nag commerçant yi rawatina nag tailleur yi bañ seen liggéey yàqu ci événement bi ñu jëm ndax dafa xat mul ñuko bolé ak lii di marché 29 juin bolé ci ak examen bi nga xam ci lañu ñu dëkkmal ni ñu bañ am ben benn kor lool tamit yëkëti na ko jëmale ko ci seen conférence de presse bi ñu doon amal ginnaw bi ñu annulé li nga xam mom moy mooy seen manifestation bi le président ne daleen doon dëggal ndëgg sarax faf lolé daal di mujj échec ba taxna ku ci nek rek ci askan wi génn def sot yee ci yàbbi waxe ci menen bir Moustapha Niass daal dinañ tàggoo foofee nga xam ne moom mooy euh, assemblée nationale euh, bu euh, Sénégal ginnaaw nag ba mu fa toogee fukki at moom Moustapha Niass daal dinañ tàggoo foofee ca assemblée ndax sax parti bi di parti AFP day continuer dox wala day ay suux loolee ca kanam incha allah rabbi di ngeen ca xam dara nañ xam fu mu wànneen di mu jekki ba tey wax ci meneen mbir jiyee ji nga xam ne jot naa am ci géej gi élèves yi nga xam dina préparé lii di BFM lu toll ci ñeenti ak Rose eh, jamono jële nag eh, jot na leen gis muy jéey joo xam ne jéey ju doy waar xale yi nga xam ne ñoo def BFM wax tamit ci meneen bi des ci jéey ci géej gi émigration clandestin eh, lu toll ci fukki nit ak ñeent dañoo ñàkk seen bakkan ci waax yi Sénégal yi foofee ca Kafountine gaal gi nga xam ni da doon dem ca Europe yaboon lu toll ci ay nit ñu bare bare gaal gi nag moom moo tàkk ca ndox ma ba lu toll ci fukk ak ñeent yu ñu gisagul sax ñi ñoom ñoo ñàkk seen bakkan jamono jile Euh, am na ñoo xam sax dañoo réer ba kenn tegagu leen bët concert casserole bi nga xam ni euh, Ousmane Sonko njiitu wees kan Wi daf ko daal di euh, yëgle woon ginnaaw seen conférence de presse bi démb ci alxemes ji nag Sénégal yi génn nañu nag waaye nag génn bi wuute na ak keroog bi ñu ko njëkkee woote ndax keroog moom moo gën a ëpp sax ay nit moo gën a ëpp bruit waaye foofee nag ca ca UCAD ñoom yi def seen manifestation casserole dafa am nag lu ca xew ca biir parce que am ñoo xam ni dañ fêté seen euh, seen anniversaire ñoom ñoo ñële bokk bokk ci waa Casamance ñoom it seen pavillon boobu lañ benn xale yi tangal leen ba tax ñu génn jàmmaloo ak ñenn ñoo xam ne dañ doon woote manifestation foofee ca UCAD ku ci nekk am ñu jël ci ay gaañu gaañ ñu ñu xaañ leen ñu ñu euh, gaañ leen gaañ yu méttee métti foofu nga xam ne moom mooy UCAD université Cheikh Anta Diop police nag ubbi na ci ab l'enquête ba xam mbir moomee euh, ñan ñoo ko sooxe ak fan lay mujje wax tamit ñu jëm ni jamono jile fii ci réew mooy Ndakaaru boo duggee ci marché bi da nga gis njënd meek njaay mi daal dinay commencé yi nii xar yi ñëwagul eh, nam daa ñëwee ndax xar dina am eh, incha allah rabbi waaw wala déet waaye nag jamono jile nii ñi ngi ci wàccaayu tabaski bi fi nga xam ne moom mooy Sénégal rawatina Ndakaaru tailleur yeeg commercant yi marchand ambulant yi ñoom ñëpp ñi ngi ci wàccaayu tabaski bi waaye nag jamono ji xar dafa xaw a jafe ci eh, Sénégal waxtu ñu wax ak waxtu wi ñu toll ak yéen jamono ji lañ def ab jàngat bu am solo dem

yi nga xam ne moo nekk ca mairie bu euh, Touba Daaru Marnaan ba fa demee nag taal otom ak ñamu àndal dem ngir saytu mbir mu mel ni mu demee ñoom nag ñu ne ko doo dugg mu leen dinaa dugg ndax parce que dama bokk ci conseil municipal bi ñu ko doo ci dugg ci lañ ko ba may xën nag mu moom mooy hôpital euh, euh, jànnatu bi ñu xoolee ni dafa damm nag ci tànk bi ci la xale yëgee mbir mi ni mu demee daw daal di génn nag saccagé fi nga xam ne moom mooy safitul amaan toj vitre yi yàq lépp ci la police ñëwee nag daa def intervention euh, ba daa di euh, dàq li nga xam ne moom mooy mobilisation bi xale yi doon def foofu doon sànni ay xeer ba jëlee leen fa nag euh, ci jamono jilee ñu ngi ci daal di ubbi nag ab l'enquête ba xam mbir mi fa leen mujj ndax sax xale yi ñoom ak ñenn ci askan wi dëkk foofu ñoom neen dañoo sonn ci safitul aman ndax ndigal li leen sëriñ bi jox boole ci di ci di ci di ci dóore wala ñu ne fayee ko ay six mille wala ay ay ay douze mille ci loo xam dañ ko def ñoom loolee wax ndax sëriñ bi moo